pour yéen de bool xaar bi la. gerte gi la ñuy tànn gerte yi. yéen gerte ngooñ mi ngeen di tànn. Eh eh eh, eh eh eh waaye yéen ngooñ mi du pour yéen waaye gerte ngeen di tànn pour lan la. lekk ngeen lu ma fi teg lekk ngeen ko xoolal ngooñ mi. lu ma bi teg lekk ngeen. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ziar naa leen. maaleykum salaam. sant ba. jaam jaam jombo ko la jombo ko. jombo ko. baarikal santal ma yéen a ngi am jàmm rek waaw waaw waaw sant suñu borom ak sant ma rabana yàlla sant yaa ngi baax xarit ñu ngi dox rek ah ñoo ngi dox waaw alhamdulilah macha allah ñoo ngi dox xar baax na de moom macha allah xar bi baax na de baax na waaw man day macha allah man dama yoroon fee samay xar waaw mais dama xool situation ak fee dafa xar diggante ak tali bi nga xam si xar bi ci déggi jéggi rek damay ragal ba sa ko loolu moo taxoon ma bëggoon ngeen dimbali ma ma indi fii comme fii yaatu na ma indi fii samay xar benn yoon ah waaye loolu moom dina diis tu xam nga tamit noonu bannu ma ko sax waaye tey say xar bëgg a ñëw fii tamit boo kook samay xar euh, day day day dooy waar noonu duñu bokk waaw xam naa loolu sax jaam nga baal ma waaye ki la wax dara ñeeku ci ndax jaay moom waaw boo bokk wërsëg la rek waaw xëy na tamit bu dikkit mën nañuy wéttali waale fii te wét nañ fi jaam xam naa li ma la wax rek da ngaa xam sama bopp amul benn problème demal ngeen di ñu sekki jaam xam nga jaay ci amul dem leen ngeen eh, eh, yow téye du fi dara dimbali ñu rek maay borom champion yi waaw yaay borom champion yi d'accord waay dinañ ñu ñëw ñu ñëw mais lenn mooy problème mooy ñun ngeen métu suñu champion yi ndax yi amul problème waaw bu ngeen ñëwee dem beneen écrit bi. bàyyi waay ki bul faale nekk ay ay race laa yor de mën nañoo bokk. saa waay mu doon def benn benn problème de. waaw waaw waaw li ma la wax daal bu ko faat mais amul problème. du yéen nee na ngeen mu ñëw rek. ñëwul waaw dem dem dem dama andi. jërëjëf eh, saa waay ñëw leen jërëjëf jërëjëf. waaw dama dama jàppale ko xar yi jërëjëf waaw dama jàppale ko xar yi waaw. moom ay xaram waaw dama jàppale ko bu ngeen dikkee ngeen ngeen demee boor bee. yéen foo xam ne bañ a la jàppale ko waaw. waaw gis nga jaay. bu ma wax dara. ñii seen intérêt la ñuy wër xam naa leen ay xaru pël-pël lañ fi indi ay xaru ah séeréer jaxasoo sunu suñu champion. waaw loolu lépp dëgg la mais bu ma ni jaay moom bokku wërsëg rek jaay bokku wërsëg rek gis lii aduna ah, amul solo xalaata barki démb ñun xar yi xar yàgg nañ fi caam caam xar bi moom moo ma mag dañu waxante dëgg. Ah, ah waaw waaw waaw moom moo ma mag sa baay sax. ah waaw waaw leer na ah, mais naa fekk xar yi jar bu yàgg. ah li nga nit boo ko yéenee lu bon loolu day mujjee këpp ci yow. Hmm. te caama saa ci wax la. Hmm. xol gën a wow xol. yow mi teg la fi daaw ba ren munoo fexe ba jaal ma bu gën a wow xol gën maa wow waay yow. Ah, kii nag bu ñëwee xam naa lu ko ay xaram lay jaay suñu kaw xar waaye loolu moo ko seetaan. yàlla baax na du ma ko nangu de. naa xamal ñaari baat nag. te nga jóg dem ci liggéeyu. baax na rek. da nga dem ci moom ah da war a xam ni nit nit daa ngaa doon nit. nit koo xam ne dafa soxor ba moom bay bay. waaw waaw kan moo dul nit. yaa ma gën a soxor sa ak saw kii lu ma ko bëgg a wax xeeb ko kii lu ma la bëgg a wax xeeb waaye kii nag naa ko xaar ñëw dana ñëw. waaye su xamal ne sama champion yi xam nga ni du jar sa kaw xam waaw nag laa toog xaar leen ba ñu ma ci benn dara nag waaw kon mooy bëggat yi nag moom saway da da daneen geer de geer moom daneen ko def moom waaw daneen geer danaa geer a géen ba àdduna bépp xam ne geer nanu koog juróom benn koog juróom ñaar koog juróom ñett yi ñaar fukk ja ah kon xar maa ngi nangoo lekk. Ah, xar mi la xar mi la. ah xar mi lekkul de ah lii du xar. lii du xar ah déedéet du xar. nan ngay gisee xar di lekk ngooñam xar maa ngi lekk ngooñ xaj la du xar. waaw yow foo toll ci wàññi bi. waaw pare naa. ah pare naa ñaata mbuum la ñaata mbuum. ñi ah. andi woon rek moo fi nekkaat dara dem dara bu mi jarul. ah yow lekkal ma ñëw ma lijjanti kii ne acca jar nga nag de danaa la jaay yow lan mooy nday nit ba teg la fii di la jaayloo xar jarut bu jarut waa jaay wërsëg la rek te xar mun ta jar buum ak buum ak xar moom la ñuy boole jaay a waaye xar danoo war a jar buum yi danoo war a jar ah waaye danañ jar de ah, bu ma nee jar rek danañ jar wax naa la nag danañ jar da ngay jaay nga mënoo ko nag nga seet neneen noo def. du ñu bañ a yegg foofu nag jaam. danañ fa àgg nag mën a foofu nag. ah waaw xam naa loolu leer ko mën damay liggéey foo taxuma yow la ma la wax rek waaw. fu ñu fekk yéen a fu ñu fekk yéen a ngi coow. inde waay. waaw waaw ñaari baat. macha allah ñu ci daal bi xam nañ ay xar benn dañ koy toppatoo xar daa war di lekk xar yi xam nañ ni ndox la ñuy reeree ñëpp xam nañ ko mais noo bàyyi rek mu sedd xam nañ lépp. xar la ñuy reeree reewuñu ndox. Ah, beneen bi ci topp mooy dama bëgg ngay respect bañ suñu sax xarit dugg suñu champion yi ndax dañuy bañ ñu jax ndax réeroo mën naa am. merci tarkaal la na ngeen def. merci dëgg suba si. ba am ngeen jàmm jàmm rek kay jërëjëf. nii rek la ñuy def ah te xóotar ko. booy nelaw di mel ni mbëtt nii lii lii nga fekkee ni jaatu yow man dama laa bàyyi ci gétt gi pour ngay nelaw wala dama laa bàyyi ci gétt gi pour ngay toog di yónnee ay chocolat di jël di lekk. non man lu ma sant maa ngi koy def. lan ngay def. waaw jox naa xar yi ñu lekk ngooñ ñëwee ñu ngi lekk. yow nii la ñu joxee xar yi xar yi kay boo leen joxee ba pare xanaa di nga taxaw xool leen jox leen ndox ñu naan. yow jaraxu toq sax moo mën a gënal man damaa xamul man nan laa def ba andi la fii xam nga ni bu ma la bàyyi won fële naaj bi tàng na fële ay yow 25 kilo nga fay gis yow ma arrangé la nga naan xaw ma seen fee nga xam si bu ngeen dëkkee moom ngeen di añee man dinaa xam nu may def ak yow yow xaaral ma woo sama waa sama jaam bii moom su ma ko woowee li ma bëgg dina ma defal aleykum salaam waaw jooma ko la waaw sa jaam bi waaw yaa ngi ci yi ah kon yéen a ngi ci àll bi kon waaye na toog na mën naa ko ah nee ko jomba na mën na ko xet ah day dàq xarit dafa dalaa sori waaw léegi comme que man ki ma fi nekkal nii mooy xam nga rek ki ma doon secondé di ataayaak ñoom seen bëgg jigéen la fi nekkee mu ngi noonu loolu la fi nekkee nag nelaw mburu ak chocolat ak nekk ci xale yu jigéen yi te bëgg mu dagg léegi nag comme Dorado moom nekkoon na fii xam nga rek dama ko koy jéggi rek te xam ne sii kat dóor yi saf na torop man daf maa liifee ba ma man ba xamatuma fu may toog su tëddee sax damay dàmp mais garaawul léegi indil ma ko rek yónnee ma ko rek waaw maa wax loolu. non moom daal na bàyyi dóor yi rek na bàyyi dóor jël na jël taxi jaru sax mu jël jakarta na jël taxi ak ay bagages am bu ñëwee ma fay voilà mu ngi noonu c'est ça maa ko maa wuy ma wuy ma ne ko yi bu mu ko fàtte nag dégg nga na bàyyi dóor yi voilà merci jërëjëf merci yàlla léegi nag dinañu xool mën a jaw mën a jaw kan moo fi dogal wax day rafet. mais na rek. ah waaw. saa na eh, laa wax waa gisuma la woo. sëgam ñëw nga. sant alhamdulilah. sa jógee. waa rey mu dee rey mu dee rey mu dee. mu jaxasoo ak sama champion waa écrit waa bul faale lii ñii maytul rek mu jaxasoo. loolu rek la am lu ma ah. waaw. wuy ma. ñu sori ci yéen yéen déraay sëñ Diaw eh boo jàppee sama tànk yéen ma jàpp sa eh yéen bàyyi nag sëñ Diaw kii mooy champion eh kii mooy champion kay waaye kii di mel eh, ni benkal nga ma champion boo ne ko benkal yow sa say xar mel ni benkal parfaitement nga ni waaw yow nag comme dama andi woon jàmm yéen ngeen di andi histoire di andi coow. waaw di ngeen xam ne si mën ngeen ko mën ngeen ko seetal. waaw léegi nag léegi loolu ci bëgg yéen waaw yéen yéen a ngi dajeeg nag Barça. <laughs> xam nga Barça moom bu ñu taxee dañuy mbëkk. ndeyam ku la nax nag. dañuy mbëkk ah mën ngeen mbëkk. dama la wax rek yoo xam ne dañuy ah, wax ci yow yow nañ ta dem. maa ngi dem maa ngi ñëw. déggoo li ma la wax dana oh, mel ni mbàcc gerte tey. xoolal tey day mel ni lii du concurrence. lay daw à l'heure. ah terrain 10 minutes du sonn kii du sonn. baanu tuus laa ko bu jox ko ndox mu sedd mun naa jaaxaar kii moo ko fekkee du ma ko romb daan bu baax laa koy romb waaw léegi nag gisa nga gis yaa ko gis ñoo ko gisandoo pare na nag pour guerre ak ñun waaw te man ku ma ko mos a seeg daan naa la mm-hmm. ci samay champion waaw loolu moom mooy lu ah, ana Balla Gaye ko mën Lo ah yaa ko mo ah, reyuma ko de yaa ko rey reyuma ko de caam waaw demal demal demal demal demal. demal.